ok ñu ngi nii ak benn élève boo xamee ne candidate la woon fi nga xam ne moom moo nekk Moussa Anta Diop benn école boo xam ne mu ngi fii nii ci Yeumbeul Sud e, tey jii nag lañ doon def li nga xam ne moo nekk proclamation ku ma ni mën leen ko waxee woon sànq e, kon nag xaaral ma daal di ko laaj ci li nga xam ne li moo jëm ci wàllum résultat e, BFM 2021 bi soxna si maa ngi lay nuyu. maa lay fay. maa ngi lay féliciter également ci li nga xam ne moom moo nekk BFM bi nga décroché au premier tour bi nga dégg sa tour nu la def. ah merci beaucoup ba ma ko déggee damaa kontaan kase damaa kontaan kase ndax dañoo sonn di mois lañ toog jàng ko di ñafe dañu parfois dañuy wàcc di 9 heures dem ba 21 heures dem te suñu parents yi suñu la ñu yaakaar école privée la ñuy fayal te loolu dafa métti chaque weer ñoom dañuy sonn xamuñu ñun nan la ñuy def ñoom ba am ñoom li ñuy fayee kon bu ñu amee nii bu ñu demee suñu kër dañuy kontaan te ñoom ñëpp ñu ngi toog duñu xaar nan nga doon préparé li nga xam ne moo nekk examen bi noo ko doon préparé. ah maa ngi ko doon préparé avec sérieux dama ko jëloon en sérieux lépp lu si waroon defoon naa ko waaw ba tey yàlla may nañu lum ñu may nii. donc lan ngay wax tamit ñi nga xam ne da ngaa bokkoon ak ñoom classe ñu def te amuñ. ah ñooñu dama leen di wax ni ce n'est la fin du monde te fii daal àddina lañ nekk am moo am ak ñàkk ñoom ñu amul maa ngi leen di bu ñu defee déwén incha yal na leen yàlla may si bàkk Seydina Muhammad yàlla mën na ko te dina ko def incha allah. ok ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit eh, benn élève la ci élève yi nga xam ne eh, dañoo am au premier tour ci li nga xam ne moom moo nekk eh, BFM 2021 bi. résultat bi nag ñu ngi nii fii lañ ko doon joxee ci école bi nga xam ne moo nekk école Moussa Anta Diop nekk fi ci Yeumbeul Sud mais duñu yem duñu yem fii nii ndax dañuy continuer suñu li nga xam ne moo nekk suñu reportage ñu laajaat yeneen élève yi tamit ñu wax leen tamit moom moo nekk seen réaction par rapport ak résultat bi. maa lay di la félicité tamit bu baax a baax. waaw ah, merci. ok euh, nan nga jàngatee li nga xam ne moo nekk BFM 2021 bi ndax est-ce que yomboon na ci au au début ndax yomboon na ci préparation bi tamit. ah préparation bi moom métti woon na parce que mooy heure yi ñu jug di jàngi ak tamit di jàngi di demaat yeneen école taw beeg yooyu yëpp ñu doog ko dund. examen bi tane na rek. lan moom moo nekk sa secret ba tax nga génn au premier tour. ah sant yàlla rek jàng leçon xëy na dañ cee bokk moo tax di wax tamit ñi amul tamit ñu leen di bu baax xëy ne nekkul seen chance moo tax. bi nga déggee tamit sa tur ci ci ci ci ci liste bi noonu lu la def lan nga yëg automatiquement. ah xanaa plaisir <laughs> yëg-yëg daal ah, bànneex daal la parce que mérité naa ko trop wax dëgg fa neex lan nga doon xalaat yaay nga doon xalaat wala papa wala xarit yi wala dëkkandoo yi. ah yaay ndax yaay sonn na trop papa tamit du ndax moom moo fayal yooyu noonu yëpp. lan la doon wax sa yaay lu mu la doon wax. ah bu ma demee danaa ma dalal rek xëy na boo si dalaa jig moo tax boo si boo boo si bokkul nag sa njig laa la am na ñoo xamante ne am nañ ko ba pare ci jour bi la ñuy gaañu mooy lool. voilà ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit wax na ki kàddu yi nga xam ne yu ama am solo xanaa rek lu ñuy def rek lu dut ñu jëlaat kenn ci euh, candidat yi wala ci candidat yi mu daal di ñu wax tamit moom tamit lan moo nekk euh, émotion bi nga xam ne tey dund na ko. fii ci li nga xam ne moo nekk Mouss Anta Diop nekk ci biir Yeumbeul Sud. voilà ñu ngi nii ak beneen euh, candidat moom tamit euh, xëy na dinañu wax euh, moom lan la yëg tey jii gannaaw bi nga xam ne moom dégg na turam ci list yi nga xam ne ñoom ñoo admis ci bac wala boog BFM 2021 bi grand maa lay nuyu. ñoo ngi lay fay. yow tur bi nan la. sama nam Moussa Faye. tey bi nga dégg sa tur ci liste bi num la def. ah vraiment c'est un peu grave mais. je suis un candidat libre. Euh, vraiment, les épreuves sont un peu faciles. En tout cas, gis na ne daal affaire yi euh, pourcentage bi daal xaw na kii tuuti mais mënoon na ña doon doon ñaan yàlla mu gën a jóg mais nag suñu borom li la dogal tey. ku gis sa kanam visiblement danga ngaa kontaan. non pas pas même xaw na ma kontaan tuuti daal mais pas trop parce que li si ñam ñi ngeen deuxième tour nii normalement. waroon nañu mën a dem te mais peut-être ndawal suñu borom la daal affaire yi daal vraiment ñu ngi ñu ci sant yàlla daal. ban mention nga am. Euh, man nag euh, deuxième tour laa génn. Ah, deuxième tour euh, la bu baax a baax di la wax ne tamit bonne chance dégg ok ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kon mbokk yi xam naa dañuy e fii nga xam ne moom moo nekk suñu reportage yu bés bi tey ji nag ñu ñëwoon jëlal leen li nga xam ne moo nekk résultat. BFM 2021 fii ci école Mouss entre Diop nekk ci biir diwaan bu Yëmbal Sud kon nag mbokk yi ñu ngi leen di jërëjëfal bu baax a baax di leen centre bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ak seen chaîne Actu Banlieue comme ni ma leen ko waxee woon Actu Banlieue moom dafa nekk au cœur de la banlieue dakaroise di wax ak dox lépp loo xam ne jëm na ci bëgg-bëgg askan bi kon nag ñu ngi leen di jërëjëfal bu baax ok ñu ngi nii ak président jury bi xam naa dañ koy bàyyi mu présenté ñu doog a dugg ci waxtaan bi président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Abdoulaye Wade. Abdoulaye euh, tey jii yow yaa doon yow yaa jiite woon jury bi nga xam ne moo nekk ci école Moussa Anta Diop nekk fii biir diwaan bu Yeumbeul Sud tey jii boo ñu doon euh, calculer ñaata pour cent nga am dëgg-dëgg. waaw jury bi amoon na deux cent cinquante sept candidats maanaam ñaari téeméeri candidats ak juróom fukk ak juróom ñaar bi examen bi jàllee. premier tour am nañu 83 admis d'office 83 juróom-ñetti fukki nit ak ñett ñu jàll d'office ñu war a dem pour def oral tool nañ ci 66 maanaam juróom benn fukk ak juróom benn ak juróom benn ñu war a dem deuxième deuxième tour waaw juróom benn fukk rek la parce que 60 la ñu am deuxième tour ak 83 premier tour boo ko boolee lépp mu nekk 143 candidats da admis donc en la pour les deux premier tour et deuxième tour donc d' office am nañu 83 candidats deuxième tour am nañu 60 candidats voilà noonu la demee. sànq yaa ngi doon wax ci nombre de euh, candidats yi ngeen fi amoon est ce que amoon na ay absence waaw am nañu ay absent am nañu li toll ci 12 absent fukki absent ak ñaar. donc jamono ñu toll nii euh, boo ko calculer BFM bi dans l' ensemble boo ko doon calculer wala ba boo joxe ci ay pourcentage daaw ak ban résultat la ñu gën a am boo xam ne c'est un résultat satisfaisant. waaw xam naa loolu du yomb pour euh, comparer ak l'année dernière parce que il fallait ma toog ba xoolaat ba fàttaliku bu baax statistique daaw yi mais quand même cette année mën naa am nañu plus pour cent kon mën nañu résultat yi bonul parce que boo amee plus pour cent d'accord on aurait avoir quatre-vingts pour cent quatre-vingt-dix pas cent cent mais si on a plus cent ak conditions yu ñu boo gisee élèves yi ñëw def ren troisième donc boo amee lii donc on vraiment dañuy sant yàlla bëggoon nañu en plus mais quand boo amee plus de pour cent je crois que c'est pas mal comme comme comme statistique. mais seen jafe-jafe lan la woon ci biir centre bi ndax wala boo amoo woon leen ay quelques jafe-jafe. waaw centre bi moom wax dëgg yàlla amuñu benn jafe-jafe sincèrement bi ñëwee fekk nañu chef de centre bi vraiment il nous a accueilli il nous a mis dans de très bonnes conditions vraiment daal vraiment amuñu woon benn problème daal vraiment. l'organisation était normale, il y avait les forces de l'ordre, il y avait vraiment les correcteurs étaient là, les surveillants tout s'est bien passé. ba bi ñu délibéré daal on aucune difficulté daal vraiment. mais mbaa amutoon tamit ay cas tricherie affaire yooyu noonu amu fi. waaw alhamdulilah suñu jur centre bi ñu nekk moom en tout cas kenn waxu benn cas wu tricherie benn cas bu nga bi tricherie kenn jàpp fi benn tricherie normalement vraiment benn problème sur ce plan là. Euh, kon euh, lan moom mooy li nga xam ne loolu ngay wax euh, candidat yi nga xam ne yàlla dogal na am nañ ak ñi nga xamee ne jotuñu am. waaw xanaa di féliciter ñi jàll dofis di encourager na ñi nga xam ne ñoo dem deuxième tour. di leen xam ni amaat nañu chance deuxième tour bi xam naa daañu ko communiquer fii ay fan xamaguñu waaw di leen encourager nag leen ñu gën a réviser ñi nga xam ne amuñu aussi ñu xam ne c'est pas la fin du monde nañu prépa gën a préparer waat jàngaat xam ne yoon yamul ci benn bu leen yàlla dimbalee mën nañu réussir la prochaine fois. examen moom àdduna moom noonu la ngay góorgóor rek yàlla jàppale la waaw vraiment c'est ce que j'avais à dire. sant bu baax a baax di ko gërëm di wax ne rek moo nekkoon président jury bi fii ci Moussa Anta Diop nekk ci diwaan bu Yeumbeul siit mbokk yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci saa su ne ànd bi ngeen di ànd ak ak seen chaîne bi di Actu Banlieue la chaîne de toute l' actualité wala bok la voix de la banlieue merci bok jërë ngeen jëf.